waaw ñu wax ci force mu ne der moom ah, Aliou Guissé na ca dal <laughs> ma may présentera plus ci li nga xamante ne moom moo di monde euh, musical bi mu nekk aussi kenn koo xamante ne il représente bu baax li nga xamante ne moom moo di culture sénégalaise ci bitim réew ndax xam nañu que dorénavant il évolue beaucoup ci fi nga xamante ne moom moo di États-Unis ak extérieur diaspora bi waaye man li may def ak moom rek je pense que comme ni ñu waxee comme tout sénégalais ñu di ko xaar dégg naa maanaam artiste euh, li ñu naan bu autoraay jibee day cornet te je pense que ñu bare tey dinañ xaar ci yow loolu nga yëkkati ba pare nag ñu soog a ñëw waxtaan ak yow. ayo ayo ayo pro lago yooy gidoo ko goley balde maadu wura calla kiso koy nay wa ngona dobbal de arsukaaji allah ko yaajende ha o aba no stress somin daarima min koye mi welto <laughs> suma lo xoole damay bég waaye tos ding ma reelo ba ma kontaan yàlla bur mooma leeni fayal maa doo koy nan ndeysaan toronton sama ngari jaman toroɓe juule jangue mbawon dorson kelala koye beeli mbebani min ko mi wasorimama hajoyima makkatal mo karam mhm. dogi safay marwa werlima kaje jamra rutitima madina juule yanade mama rasulullah woni mamadou woni nasiru woni mamadou abdallah woni mouhammad a ah, balaa ngeen nuyoo. balaa ngaa sori damaa bëgg nga may ma ci yàlla buur bi nee na. fonkal sa yaay benn fonkal sa yaay ñaar. ah yaay booyo yaay booyo yow de ñaanal ñoo yaay booyo yaayoo buur bi nee na fonkal sa yaay benn. fonkal sa yaay ñaar fonkal sa yaay ñett socc teg baay baay baayu ñëpp la yaay yaayu kenn la yaay boo yaay sama yaay ñaanal ma yaayoo ah lépp looy door mbooloo mi dafay néew waaye su demee ba neex ñëpp wàlli see mama yow booy door amagoo yow ak sa yaay booy ngeen di di daanoo lu ne yen ngeen dugg ca su demee ba neex neexoo mm-hmm. ñëpp wàllise ñii di la domo ñii di la ndamoo waaye yaay bu ko fàtte loolo ndax ba muy metti di eh, metti metti metti di metti loolo yaay rekk la woon naan sa doom yar ko sa doom ju xool ko li fi manqué moo ko jël lu ne nga daj ko yaay di muñ di muñ di muñ di muñ ba ngay juddu looloo ba ba ngay màgg yow ak sa yaay dong la kon yaay bu bu ko fàtte bu ko won gannaaw bu ko wutal moroom bu ko wutal màppandoo amul maas oh mama I love Aliou Gissé boo bëggee Aliou Gissé boo ko laa cappee tuuti rek. ndax yaram bi tooy na. Aliou Gissé boo bëggee foo dem toog fa laa ngi waxtaan a yooyu tubaab jeex dem. te musique bi dañu lay woyloo. wallaay romb nii euh, rek dañu la bëgg te euh, dañuy constat ay musique Sénégal yëpp ak may envoyé ay SMS. Mhm. naan sañul toog ba jug te du way euh, Cheikh Omar. Taara Taara Taara Taara. mini. Seku Nana Jalika Toro. taara bu ko taara kontaan damay seeyi elimaay sire samba dembaali mu taar taal Seeku Mario mo alwaar Seeku Mario mo bajala Seeku Mario mo wayteela Seeku Mario mo sansani Seeku Mar mo wayteela Sékou Marioy Mar Khalifa moom koy nana Louga loo Cerno Bachir Tall ma koy Yàlla jàppoo galle Sékou Mario koy na weli min koy mi wasori mama ma inde ma da ko yaade jamanooje madu dum ko teddungal ma ye pulaago weli nekk clip bu bees boo xam ni rek ñu ko indil nuyoo ko sax ñu bàyyi la nga nuyoonte ak téléspectateurs yi balaa ñu dem euh, ci clip bi nga xam moom nga ñu indil. avant tout damay nuyu Sénégal yëpp. di nuyu euh, ñi may bégee ñi ma xam ak ñi ma xamul ñëpp maa ngi leen nuyu. xam leen ma nag ndax man moom. waaw am na ñoo xam ne damay réer seen kanam sax peut-être on peut dire mais pour pour vous diir que je suis comme ça naturellement kenn bañu ma ñëpp ma bëgg man naa bëgg ñëpp dëgg <laughs> mais dañuy toog lu yàgg duñ la gis euh, fan ngay nekk ak ci lan ngay nekk mm-hmm. waaw boo xoolee nag euh, à un moment donné dama dem maa ngi gën a basé wu léegi Chicago Amérique mm-hmm. euh, ak sama famille yëpp sama soxna samay doom ñun ñëpp ñu ngi Amérique waaw <laughs> donc te lu waral loolu du dara parce que souvent mën a nekk à l'aise ndax ñun ñëpp boo xoolee suñu yaay yi coono moo ñu may ñu toog fii di wax comprendre nga mhm. sacrifice boobu noonu ñuy def nii dalay leer ni yow sa mag bu defoon loolu mhm. wala avant yow bu defoon loolu tey di nga am plus que ça donc nag euh, pour man euh, dama dem wuti pour andi sama réew te tey yàlla dimbali na ma mhm. maa ngi liggéey ak euh, label bu ñuy wax Green Room ak producteur boo xamante ni paas nañ ñëw fii deux trois fois pour def des enregistrements yóbbu ko tey mi ngi lii yëpp moo ko def moom ngay gis ci clip bi mooy lii Carole donc c'est un producteur international donc yàlla baax na ñi ngi ñëw te loo xamante ni da koy rab mooy gën a yaatu et que foofu di ngeen fa mën a waxtaan yow moom quoi sama xarit la ah, nit ku baax la Pape nit ku ra ku mm-hmm. nice xol la ñu koy ñaanal yàlla par yenn saa bu ma amee invité bu ma commencé di waxtaan sori ak kooku euh, bàyyi waaw ah, envoyé ma ko waaw waaw waaw que waaw xam naa ni xam nga moom dafa bëgg ay pap dafa bëgg toog am njaay doxal jóg waxtaan waaw waaw waaw donc te loolu boo foofu dina gën a yaatu en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax mu ngi xool xam naa dina programmé nga toog ak moom plateau ngeen yegg incha allah incha allah may remercier nag tout le monde Euh, commençant par vous. Mhm. merci beaucoup yaakaar naa ni duñu ci doyal. ànd ci ak ki nga xam ni mooy son fils Nelson Mandela. nduur waaye ba tey euh, ñu ngi nekk ci ay. Euh,